dëgg daa mun a neex. dëgg du mus a neex. wax dëgg yàlla di nuyu ñëpp. Mm. di nuyu waa euh, Dakar. net net mm. xam di nuyu jaw fara waa àndal. Mm. di nuyu tamit aadalay. Euh, aadalay mm-hmm. borom Espagne. Mm-hmm. sama mhm. international boobu. Mhm. ba may ñëw dafa jëkkati xaalis bari jox ma. mais mais Alboury mënuñu mënuñu dama sañseel nga dem. Ah, di nga daaneel foofu ah, mais mënuñu jeexal te laaju ñu ban combat moo la a métti ci sa combat boo xamante ni combat bi daf la métti ci soit waa daf la escanté wala yooyu daal. man ak ma faal sëy. dalaa escanté dalaa duma. man woon net bi di ko gis. yaa ak ma faal sëy dinañ ko. man ak ma faal sëy. dalaa duma. combat kooku liñ naan euh, njool la. Hmm. moo ma sut fuuf. Hmm. moom moo guy filaawa ma xam nga man mbër bu ma sul yombul. dëgg neexul. guy ma filaawa ma ma bëgg a jeexal làmb ji mënul jeex. ah ba léeg-léeg si làmb yow. bu bëree sama dernier souffle. waaw. <laughs> Oh. sama baqata yi di jeex. <laughs> ba tegul tegul kuu ci bakkan bi boo ne ko. <laughs> yow gisoo sama bakkan bi di mel ni téere bopp. li ci do li ci dóor ma dee. prothèse dent dafa am mais prothèse bakkan dañ ko war a defar. Hmm. ndax am na bakkan yoo xam ne sensible. comme sa bos. waaw sama bos dafa sensible. sa bakkan ni mu mel ne. Eh? non dañoo waxtaanee rek. incha allah waa CNG nañ jug ci loolu. dafa dafa ay prothèse bakkan combat bi fan la mujjee. maa ko daan. Hmm. mais xam daan xam nga rek làmb jooju rek laa ba pare. Eh. te siifu ma. non boobu moo la filaaw boobu bàyyi naa si non boobu siifu ma. doo la ma sa bakkan di yéen. di si jógal sama supporter. boobu rek laa mën a bëre. Ah? siifu te yaa damaa pare bàyyi. mais mais mais combat yaa ngi doon wax que nañ ma euh, xam naa du ma ci mën a jaara sax parce que c'était la dañ maa dañ kii bu baax. dañ maa gaañ xam nga ni ku ku ku yi ñëwaat mooy gën a métti. baa yaa ngi koy préparé ragaluma loolu. xam nañu gaañ ma la dóoruñu ma. dañu dañ laa noog bos wax nga ko sànq. kaane lañ dugal sama bët. mais tamit ay noqos ak yooyu yëpp ci làmb ji tamit war <laughs> na ko xool de. xam nga parce que li nga doon wax dañ. non xoolal ma sama bët. waaw boobu boo boo boo déggoon foofu da xam ni. bon il a mal quoi affaire na métti na quoi parce que da la doon jam. Mm. barke yonent bi hmm? na lépp xool naa la de. bëre nañu daan nañu jubile nañu ñu bëggoon ñu bëgg ñëpp. doo ñu doo ñu ñëw mayaat tuuti ci extrait boobu parce que loolu nañ ko doyee. dañ maa noq bi. ñëw déedéet man maa indilaat ma wax la ngi nii daanaan bu mag bi bu waxee mu da bu waxee mu neex non non xam nga nga memaat xam nga lu ma bëre d' accord ñëw daanaan bu mag baa ngi nii sampo bu mag baa ngi nii bu bëree mu neex bu daanee mu neex bu waxee sax mu neex alburé moo bëree xaw ma sax lu ma bëree <laughs> émission moom fii lañ koy tëjee émission bi fii lañ koy tëjee. am na benn laaj doguma la am na benn laaj xam nga waa Régis dañuy participer ci émission bi ah. jaara mm-hmm. am na benn laaj bu may laaj mais bon laaj bi est-ce que jar na ma la ko laaj vu que euh, sa sa première amour sa première bëggante daal. loolu maa ngi nday déggan la woon. nga ko laalee dafa tox. nday déggan. ah nga ne da ngaa vierge ba pare laal doomu jaamu ji. laal lan mooy laal. ah laal dafa am. ko defar waaw maam jaara yóbbu sama yoo. Ah, ah, waaw Aliou waxal noo def noo def te sànq ko tegloo ah, ko tegloo da nga ko tegloo. mu def la laal bi. waaw bàyyi ma da nga <laughs> ko da nga mu lan. tey déggal. dama ko doon doxaan mu bañ. ma topp ko ay at. mu bañ. séeréer la woon nag. doon doon. doon doon mindaan la woon. mindaan mm-hmm. taar rayu ko. Mm-hmm. mais nii lay wokkatoo. c'est-à-dire. ah eh, eh, eh, am na loo xam ne yow. Ah, amul kanam waaye amul ginnaaw maam jaar nañ ko bàyyi foofu. Oh. <laughs> <laughs> waaw demal demal demal noppi naa. da ngay dof dof waaw def naa bouche be. demal ah, continuer. ma doxaan ko bu bañ ma ne ko kii dama koy noq. Hmm? ay doxaan nit ki mu bañ nga koy nopp. waaw loolu la wax woon. ok. bañ benn suba daal la ma romb romb ma suñ koñ tombeek may génn noonu muy xëy ma kereel ko fa problème boo xam ne na ko yow man man ma ma doxaan la nga bañ dama lay noq ba nga duul mu kii ma mbéj fekk moom mu ngi soloon ay carax. mais kenn ma déglu. dégg leen dégg leen. defet boobu musuma jël defet bu tey tey noonu. léegi moom dàll yi soloon jamonoy seddaay la xam nga seddaay boo dox ci suuf sax dàll yi lay bi da ciy taq. waaw oh. bi la simmi taxaw damaa yegg si ba ma ko dóoree ci kanam boobu laa bàyyee doxaan ba léegi ndax kooku fidalul moolul. alors jaar yaa ko bëggoon dóor mu dóor la maa na. comme niñ koy xëy saa su nekk rek ah, naa ne kontaan ngeen ci naanaan bi leen dalal émission bi nag nii lay demee saa su nekk rek dafay boole utile ak agréable que ni kontaan ngeen. Mm-hmm. parce que ñun loolu kese lañ leen fi toogee di leen bégloo di leen kontaanloo ah, ah mm-hmm. Ousin. Mm-hmm. Ah, ñu taal di daal di tàggatoo rek ba beneen yoon incha allah. waaw waaw kontaan nañ bëggoon nañ gën ko yaatal. sinon gën ko sax waxtaanee mais bon lu euh, bu jiw jaax bu jiw euh, weesuwul. lu jiw a jeexul. lu jiw a jeexul jógu fa. Mm-hmm. dinañ ko indiwaat mu gën a waxtaan ñu gën a waxtaan ci làmb. donc ça a été un plaisir quand même di ànd nga xamante ni. voilà il fait le buzz waaw waaw il euh, saa su nekk rek euh, ku nekk mën na fee toog. Mm-hmm. Ouzin yow mii sax mën ngaa xëy def lu rëy nga ñëw toog fii. lu la seen ah. ah, ah, mm-hmm. émission la waaye nag du ma daal di tëj plateau bi benn yoon te daal du may sargal la ki nga xamante ni nag moo a lu ni mel. Euh, muy Diaw Fara. Diaw Fara est doo ñëw si plateau bi tuuti ñu ñu kii la ah da nga koy dañ koy jël après spécial moom moo gën a neex nag je de moom moo gën a neex mag ji mm-hmm. macha allah nee leen comme ni ñu ko waxee rek moom famille neex la dañoo saf saab mm-hmm. añu ah, daal di tàggatoo ba beneen yoon allah waaw macha allah di nuyuwaat ñëpp rek mm-hmm. di nuyu jaw faram bi ma fi di nuyu booy koñ bi yëpp ndax wax dëgg yàlla booy dañu sonn ci làmb ji esa bi ku ciy wax da ko amul son ndax ñoom seen baat dañoo yuuxu ba sonn dañoo bëgg nag dañoo bëgg parce que alxuraanu karim di nuyuwaat ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp ñu jàpp ci combat bi yëpp mm-hmm. macha allah. Mm-hmm. macha allah ah, jox dig daje ba beneen yoon allah merci. ci ay simili yu néew ñu jox leen xibaar yu wér te wóor. ak Dakarnet dara du rëcc ci réew mi.